état bi dañoo taxaw police ñu wax ak benn affaire bu ñu ñu man bu ma ñëwati si kër gi bu ma ko woote téléphone ah fu ma ko romb sax bu ma xoolati man loolu noonu wax nañ ma ko mais man nee naa leen man nee naa sama xol man su ma bëggee def dara yaa xanaa yàlla yàlla suñu borom moo tax du ma def dara man daal dama lay ñaan daal su fekkee mën nañ ma fay sama xaalis yow nga jàpp si parce que laaj nga ma tey doo si mën a jàppee pour ma pour ma jox sama xaalis wa ilaa tamit ñaari solution ma jot sama xaalis wa ilaa su ma mënul jot nga wax ma man mënuñu laa fay affaire yooyu loolu laa bëgg daal instant yi tontu parce que man tamit li ma bëgg a def bis ma ko defee tamit ah ñoom bett de bi daal dem nañ police ñu may menacé ñu ma bul ma madame Diagne bul demati seen kër ah foo ko gisee bu ko bu xoolati affaire yi parce que police tamit deful liggéeyam bu mu war a def waroon na ma xam ni man ñoom sa liir nañu ay vocalam war nañu xam ni kon kii dennal jot sama xaalis waaye dañu ma lan moo lay wan ni la yow dañ nga ko envoyé xaalis ma ne man moom dafa ma leen ni ma papaam daf leen liggéey ak papa ji parce que papa ji entrepreneur la papa ji di ko jox ay xaalis bu bëri bu koy dégg dégg si comptam confiance la ñu amoon maa ngi xam nga ko defal 5 ans mosoo leen am ay jafe-jafe xaalis xëy wóolute ba moo taxaw wóolute wóolu ko moo taxaw moo tax ma koy denc sama xaalis instant bi sama 3 millions 40 mille francs la ma ameel nag man nag yaayam yaayam ci boppam façon teraanga bu nekk defal ndax façon teraanga bu nekk defal ndax yaayam moom moo mën a ñëw teg ba may def li yaayam di ma jël moom Maram Diagne di ma yóbbu si yoon ci ànd ak seen benn nijaay. mais kon nag dama dama xamatul essayé ban àdduna la ñu nekk mu nag soo gisee ma lay vocal nii dama lay wax benn affaire daal yow essayé bi daal sa jabar su fekkee mën nga ko fayal xaalis wa ila nga fayal ko parce que man tamit sa doom la te dama nekkoon ci àll bi di liggéey xam nga bu baax immigration la muy daj maa ngi ni dërëm yoratuma ko dërëm yoratuma wax xaalis ba moo tax ma ñëw ma ñëw Sénégal essayé bi soo gisee àdduna léegi léegi sëy léegi intérêt daal la ñuy sëyee intérêt la ñuy sëyee soo amee alal léegi mën nañ la sëyee sëyal sëyal soo amul alal comme sama genre di taxalaat is la ah ñu xool ku la gën a am alal ñu ànd ak moom. mais daal li may mën a wax daal exemple bi yow daal loo ci mën a def ñu jël sa matuwaay soo fay sama xaalis nga fay sama xaalis su fekkee daal mënoo mënu maa jot sama xaalis man tamit ah exemple bi yoon jeexul de. ah instant bi yoon jeexu la yoon jeexu la te ndaw laa nag instant bi nag lépp loo xamante ni dama kaa def dama kaa def xëy na tamit mu doon loo xamante ni dama ko def tamit ay problème tamit man teel laa leen wax sam bopp parce que moom dafa dem police ni man wane ay vocal dama ko doon menacé pour rek ko man nee naa leen waa police man menacé naa ko mais dama juum moom moo tax instant bii nii àdduna dafa doy waar léegi dañoo nekk si jamono joo xamante ni léegi instant dañuy bàyyi ba problème am ba dara am ci ñuy suma yëgoon damay bañ nag affaire bi ay rëccu di ci am daal